waaw xam nga euh, ministère bi dafa nek ci ñaari tank. dafa nek ci microfinance mais surtout dafa économies ci économie sociale et solidaire boo gisee njiitu président Maxal Sall ne damay indi économie sociale et solidaire def ko deuxième initiative nationale Moi, nit ñi nga xam une capacité d'adaptation ñi ngi nekk ci seen environnement nangu nañu bolo di pour mën a am seen autonomie ñu jàppale leen te modèle boobu moom la ñu gis fii ci faamu tubaab jàllaaw yi nga xam ne dañu def seen groupement nekk di liggéey donc ñun dañ leen fekk ci ñu defar ba mu baax euh, am nañ seen investissement am nañu ay partenaires yu leen accompagner ñu jël nag li ñuy wax bio def ko seen euh, soubassement maanaam seeni engrais ñoom ñoo koy defar seen bopp suñu paree ci engrais bi bay variété yu bari lañ fi bay te saa bu ñu bayee dañuy def bayu noor bayu nawet te buñ ko defee ba pare liñ ci récolté dinañ ci lekk ba pare jaay donc loolu su ko état bi encadré non seulement ñu jël ko wane ko fenen, ndax modèle yu mel ni bari na mais mën nañ ko gëna wasare, ci euh, li ñuy wax les exploitations familiales fofu la euh, racinu économie sociale et solidaire nek. manam ñu gëna wacc ci nit ñi gëna dem ci gox goxati euh organiser len donc accompagnement ministère bi day nek sur toute la chaîne dinañ leen organiser dinañ leen encadrer ba pare dinañ leen indil apport en financement yooyu dinañ ko jaare ci programme yu mel ni Plasépris nga xam ne bu dee ci wàllu ligne PME la mën na indi investissement ba ci lu tolloog ñaar téeméeri million kon suñu équipe yi dinañ ñëw xool ci wàllu unité de transformation bi nga xam ne buñ ko fi indee dina gën a mën a yaatal liggéey bi ak euh, capital semencier bi aussi yooyu yëpp nekk yu am solo yoo xam ne ouverture yi bëri na donc ñëw gis modèle bi baax na ñëw aussi wan nit ñi ne euh, li ëpp solo ci ci entrepreneuriat mooy nga gëm ne fi nga ne mën nga fi def dara te euh, ñoom suuf rek la amoon mais tey xoolal li